Macky Sall nag lu jëm ci wàllum investissement dugal na loxoom bu baax a baax Touba waaye nag lu jëm ci wàllum politique ba léegi Touba ànduñu ci ak moom yéene kaay gi di Le Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci hôpital Dantec bi nga xam ne maanaam tëj nañu ko génn maladie journal bi nee ci anam boo xam ne daw na yaram loola anam bu doy waar a doy waar yéene sa nee ñetti hectares yi nga xam ne moom la wax ne moom la ñuy ci hôpital Dantec yooyu maanaam lan moo tax ñu koy jaay ak fan la ñu ko dugal yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy ñu xibaar naan ñu marché Colobane yëngu na ndax ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum jënd ak njaay nekk sa jaba boobee ñoom nag nee nañu boo muy tuule daal du ñu fayati li nga xam ne mooy ay taxe la ko waral mooy marché ban yorin wa nga xam ne moom la ñu ko yor mu lëndëm ba mara détail yi ak marché boo xam ne anarchie moo fa am maanaam pëcc xoona loola rawatina nag lu jëm ci wàllum mbënd mi loolee moo tax commerçant yi ñoom nee nañu maanaam bu ñu ko defarul andi wu leen ay leeral ci lu jëm ci wàllum yorinu marché de ci lu leer ñi li nga xam ne mooy ay taxe ñoom dinañu ko bàyyee fay yéen kaay gii da lay siko xëy di ñu xibaar naan ñu caat ak kilifa ñaari rappeur yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe kër gi génn nañu ab single boo xam ne bu tàng jër la single boo xam ne police lañu ñu ko jagleel kër gi is baka noonu la ko journal bi tuddee yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall njiitul Union na ma nga woon ci diwaanu Bamako ngir nag gisante ak Assimi Koïta gisante na ak ki nga xam ne jamono ji moom la ñu dénk réew Mali ñoom ñaar waxtaan nañu ci lu jëm ci wàllum sécurité waaye tamit Macky Sall fësal na nag ak yi jëmale ko ci askan wi nga xam ne ñooy peuple malien yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na Assimi Koïta daan nay dalal xelu Macky Sall ngir nag joxe réew jox ko civilier bu àpp ba accès yéen a kaay gi de Le Soleil nee na Macky Sall ginnaaw bi mu demee ci diwaanu Mali dina dem Tchad dina dem Gabon yéen a kaay gi di bés bi nee na Macky Sall ci diwaanu Bamako la nga xam ne waxtaane na ko ak Assimi Koïta bokk na ci lu jëm ci wàllum échange commerciaux maanaam jokkalante dugalante ci lu jëm ci wàllum jënd ak wàllum jaay lu soxal wàllum transition bi waxtaane nañu ko lu jëm tamit ci wàllum terrorisme ak militaire ivoirien yi nga xam ne teg nañ leen fa loxo loole lépp bokk na ci li fa Macky Sall waxtaane yéen a kaay gi de la témoin nee na Macky Sall ak li mu def sorewul ak nga bàyyi ba jaan dem nga topp ca wati soo di dóora ndax Macky Sall bokkoon na ci ñi nga xam ne ànd nañu ngir nag ñu daal di embargo askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Mali Macky Sall àndoon na ci tey jii nag Macky Sall moo dem ca diwaanu Mali mel ni kuy neexal Assimi Koïta ba pare di ko fësal ak njàpp na lam Macky Sall dafa mujjee nekk nag avocat male yéen i kaay gi de la sëqëy di ñu xibaar nan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko jamono ji nag pare nañ ngir samp lu toll ci ñetti groupe parlementaire ci na nationale benn groupe parlementaire bi Bara Gaye moo koy jiite nekkal fa PUR beneen groupe parlementaire bi Barthélémy Dias moo koy jiite nekkal fa Taxawu Sénégal beneen groupe parlementaire bi Birame Souleye Diop moo koy jiite nekk fa Pastef yéen i kaay gi de leen foo xëy di ñu xibaar naan ñu maître Abdoulaye Wade ñi nga xam ne ñoom la àndala ñoom nag gën na ñoo yeddale seenuk ànd ci coalition Yewwi Wallu yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Aminata Touré mi nekkoon tête de liste Bokk Yaakaar ci élection législative yi ak victoire bu gëll góose bi nga xam ne moom la Benno ama maanaam Aminata Touré fan lu ñu koy dugal ci gouvernement bu yes bi loole nag moo nekk ay laaj yoo xam ne jamono ji ñu bare bari ñoo ngi koy laaj ndax nag Aminata Touré victoire am bi demeewul noonu yéen kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Ibrahima Sène bu PIT nee na opposition bi ak pouvoir bi mënuñoo ñàkk a waxtaan yéen kaay gi di nee na Ousmane Sonko nekk njiitu réewum Sénégal 2024 loolee lan la nit ñi di tiit pourquoi avoir peur de Sonko lan la ñuy ragal ci Ousmane Sonko mu nekk njiitu réewum Sénégal 2024 loolee le 24 heures xëy di laaj ndax nee na ñi nga xam ne sax ñooy waa presse française bi jamono jii nag commencé nañ sax di si def ay analyse naan waaw bu Ousmane Sonko nekk président 2024 diggante France ak Afrique nan la war a demee yéen kaay gi di sunu lamb ñu xëy fekk fa Gris Bordeaux nee na du jóge écurie Fass ndax bu jóge écurie